أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله وما توفيقي إلا بالله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى حقدة من لساني يفقه حولي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد سيدنا ومولانا محمد نبي أمي وعلى آله وأصحابه وخير خديمه وأمته أجمعين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام الله وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñuy sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jiital ci nuyoo bi xalifatu am li taifatil muridiya Cheikh Sidi al Muxtaar Mbàkke di ñaan suñu borom guddal fanam ba lépp li nga xam ne moom la yéen a liggéeyal maamam ja yàlla na ko suñu borom àggaleel ci jàmm di nuyu képp koo xam ne yaa ngi teewlu émission bii di euh, jotaayu soxna yi fii ci site internet euh, cheikh ibra fall point com kon euh, ginnaaw suñu nuyoo yooyu ñu ngi indi euh, thème bi di ko jagleel euh, suñu mbokk soxna yi muy nekk ni jigéen ci lislaam waaye avant boobu dañuy xamle jigéen avant lislaam bi ñëw na lañ ko jàppande woon ndax liberté bi nga ko jox mooy xurriye bi ma am léegi ngir mën a bokk ci nit ñi ak xam la mooy gëddaam ak mën a dund dundugu sell ndax amoon na la njëkk lislaam bi ñëw kon mm, dañuy ñëw ci tomb bu njëkk bi xam ne la mooy jigéen ni ko suñu borom bindee ak jigéen avant l'islam ni ñoom leen ko jàppee woon ñu xam ne fal maratu xabla islam kaana taani min azulli wal xirmaan wal ihmal naati ki misaali zalika kon euh, arab al jahiliya yi ñuy woowee euh, arab yi njëkk nga xam ne boobu xam-xam ñëwagutoon lislaam ñëwagutoon jigéen nekkoon na koo xam ne kuñ daan toroxal la joxuñu ko woon ngir gëddaam jàppe woon nañ ko nu leen neex ngir lan ngir ñàkk jàng te boobu xamuñu ne jigéen lu fi baax ci moom la jóge wala suñu borom yi ci jigéen ñu baax ñi lañ leen wàcce te képp ku fi baax rek jigéen moo la jur naka noonu uh, nit mënta dem sans jigéen ndax xam nañ ni àdduna moom uh, lu bari uh, suñu borom ci loxo soxna yi la ko jaarale kon arab yi bu njëkk ba noonu lañ jàppee woon jigéen comme alxuraan ni mu koy indee waxi suñu boromee yaqulu taala azza wa jalla wa iza busira ahadukum bil unsa zalla wajhahu musawwadan wa huwa kadhim ñi ngi wax suñu borom yi wax ci alxuraan naan arabe bu njëkk ba suñu musaan leen xibaar seen soxna yi bu musaan am tout tànk bu ñaar xibaalee rek dañuy laaj góor la wala jigéen su dee góor la moom tane na waaye bu dee jigéen moom dangay gis seen xar kanam yi di feeñ bil asaar seen kanam yi dafay ñuul ngir lan ngir meer ndax dañ naan jigéen moom ñaar rek dalay teg gàcce wala bokk dund goo fi indi mu lekk ko ñoom loolu lañ daan wax. kon ñu xam kon jigéen baax na góor baax na waaye xame ko woon dañ daan def ne bu ñu leen misaalee bu leen xibaaree ne jigéen la rek ñu commencé di uh, mere leen deful dara. kon suñu borom mi ngi waxaat ci eh, alquran naan wa isal mawudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat ci suratul takwir suñu borom ma ngi ko fay wax ndax dañ daan jël seen doom yi daal leen yóbbu ba ci àll ba di leen rey eh, ñuy xool kon suñu borom leen ëllëg yomal xam dina leen laaj ci yeen bàkkaar lañ eh, lañ teg ray gi maanaam ci yan preuve lañ teg ba di leen faat fekk ñoom ñi ngi xool ndax jàpp ni suul mi jàpp ni di ko suul xool rek dafa ñaaw rawatina koo xam ne amul benn bàkkaar ngir lan ngir ne jigéen moom amul njariñ kon te jigéen euh, fii ku fi nekk góor jigéen moo la jur ba pare ji àdduna moom su jigéen ñëpp baaxoon rek euh, àdduna baax ndax suñu borom def na ni jigéen am na doole lool ci société bi kon ñoo xam ne bu njëkk ba euh, lislaam avant muy ñëw noonu lañ daan <coughs> def jigéen ñi ngir bañ ko suñu borom bañ mi ngi koy waxaat ci suratul anam naan xul taalaw atlu ma xarama rabbukum aleykum ala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan mu ngi wax Seydina Muhammad naan ko yow Muhammad waxal sa ñun ñi ñëw leen ma jàngal wala ñëw leen ma waar leen wala ñëw leen ma xamal leen ni suñu borom araamal ci yéen suñu borom moom <clears throat> dina jégale bàkkaar yëpp am des bokkaale kon kon suñu borom xam ne ne nguuram googu bëggul kenn ko xam da nga koy méngale kenn ngir bañ gum ko bañ te euh, ñi ngi borom xam dañ naan ngir euh, suñu borom bañ gumu bañ loolu bokkaale gi mu bañ dañoo bokk benn aaya bu ñu nekk muy di faat bakkan ci loo xam ni bi xayri xaq ba pare tamit nga koy bokkaale <clears throat> kon ñu xam suñu borom mi ngi koy mi wahanan, ngi wax naan nañ ko maytandiku bu baax a baax mu waxaat ne wabil waalidayni ihsan nga xam ne suñu borom tamit fonk gi mu fonk ñaari jor mu ngi nañ rafetal jëmee ci ñoom ndax mi ngi naan bu leen wax sax u fen ngi wax ci kon ñu xam ne euh, suñu borom lu fonk fonk jigéen la ngir rek dañ naan suñu borom gën a fonk ak yi muy yi muy gën ndax ñoo bokk même kon ngir <coughs> am gum am doole muy wax ne wala taqtulu awlaadakum min imlaaq wa nahnu narzuqukum wa iyyaahu muy wax naan bu leen rey seeni doom ngir ragal gacha. ndax man suma man seen borom maa leen di wërsëgale ak yéen itam kon bu nekkee ne ragal dépasse moo tax ñu jël ñooñu di leen faat suñu borom nee na man maa leen di wërsëgale ak yéen ñi nga xam ne yéen leen jur kon suñu borom nee na ragal gàcce tamit ragal ñàkk tamit bu tax ñu ñuy ñuy faat ñooñu ci nga xam ne nekkul dëgg mu waxat wala taqrabul fawaxis ma zahara minha wa batana wala taqtulu nafsa allati harama allahu illa bilxaq wa zalikum wasaakum bihi laalakum tattaxuun kon suñu borom mi ngi wax naan na ngeen moytandiku ñaawteef yi nga xam ne moo nëmb ak moo ak yi feeñ ndax ku nekk xam na ni suñu borom moom moom mooy gis lépp ndax boo fekkee da ngaa jàpp ne suñu borom gisu rek ba tax ngay def lu la neex ndax nga sa bopp nit ñi moom duñ la gis waaye ab rido ak fenêtre boo ko tëjee ak bun terewul suñu borom di la gis moom mi la bind foo mënti nekk mi ngi lay gis rawatina nag euh, ñaaw xeeti ñaawteef foo mënti nekk rek jàppal ne ba la nit ñi gisul suñu borom lay gis kon mi ngi watandiku loolu mi ngi feddali war ba tey bu bakkan bo xamni ni da ngeen ko rey du te rayu len ko ci ak ndax li waxoon an nafs bi nafs mom la suñu borom di le manam ray kiñ ko war def moy ki nga xamni ne dafa ray bakkan ak nga xamni xani dañu atté ci l'islam ñu war ko faat mo xam ca mo xam ci nga xamni mo la dogal ni kep ko def dañ la wara a rawate na ray bakkan wa su do lolu ci ak l'islam amuñu droit di ray ñu fekk ñu defu dara kon nañ ci bàyyi xel bu baaxa baax kon suñu borom mi ngi mi ngi denk kon yoy ñu bàyyi ci xel bu baaxa baax ta bu njëkk ba tamit ñàkk gi ñàkkoon eh, respecté jigéen ak ñàkk jox gëddaam daan nañ takk jigéen di ko fase wala bi asal maraat ñoom donte fukki yoon laat dañ koy dañ mën nañ laa takk di la fase di takk di fase di takk di fase ngir lan ngir maanaam ñàkkoon ngir islam ñàkkoon ak jigéen ñàkkugum ñàkkoon personnalité moo taxoon ñu daan ko defi metti yooyu kon eh, war nañoo santaat l'islam bu baax ndax moom moo ñëwaat delluwaat ñu suñu xuriya muy liberté xam laan lan mooy jigéen xam tamit ñun ñooy kan ak lan la suñu borom bind ci ñun ndax li euh, borom xam ne magasin la boo xam ne rek su baaxee isa ahdataha ahdata shaaban tayyibal agraq kon jigéen buñ ko buñ ko waajalee rek waajal nañ ñëpp wal balu tayyib yaxruju nabatuhu bi izni kon jigéen buñ ko waajalee waajal nañ ñëpp li ñu al umma madrasatun li awlaadiha kon jigéen moom mooy école bi njëkk ci doomam kon jigéen mënta ñàkk société bi kon gëdd bi ko lislaam jox ak teral mu ko teral ak suñu borom ni mu ni mu ko bindee kon nañ xoolaat suñu bopp bu baax a baax ba pare comme daan nañ def tamit jigéen su musaana gis règle li ñuy wax euh, mbaax mi jigéen di baaxoo di gis daan nañ ko ber duñ boo moom lekk duñ boo xam moom naan boo xam moom feneen kenn génnee sax kër ga ngir lan ngir ñàkkoon ngir ñàkkoon a xam muy ngir seen jaaxil gi réeroon gi réeroon rek moo waraloon ñu daan jël jigéen di koy def yi métti bi lislaam dikkee moom moom waxul buñ bokkoo ñoom lekk waxul buñ bokkoo naan tere nañu julli ak woor ba fekk mu ba fekk mu dakk waaye tere nañu ni bu leen seq ak seen ay borom ko dara leen ndara ni da ngeen a set waaye bu boobaa mën nañ bokk néeg xataa sax lal ñu tëdd mën nañ koo bokk kon ñoom ñaawteef ñu daan def ñàkkoon a xam rek ak mën a jëf-jëf ñu ñaaw kon moo nañ ci dugaloon ndax salaa salaam day wax naan istawsu bin nisaai xayran fa inna mar'ata xuliqat min dulail awaj wa in awaja sayun fidila axlaahu fa in dahaba tuqimhu kasratahu wa in taraktahu lam yazal awaja fastawsu bin nisaai xayran rawaax buxaari muslim an abi hurayra kon Buxaari ak Muslim ñoo jëlee ci Abi Hurayra Abi Hurayra mi ngi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam naan na ngeen rafetal jëm ci jigéen ñi na ngeen laabir jëm ci jigéen ñi ndax suñu sallallahu salaam mu ngi koy denk ndax ne na jigéen dañ ko bind ci faar gu dëng te suñ koy jubbantee soo ko jubbantee tamit danga koy dàmm rek kon jigéen boo boo nekkee moom da nga koy tette di naxtaan di conseiller di xelal ba fekk suñu borom di def li nga xam ne moom nga bëgg ci moom waaye li salaay salaam naan wa in zahabtahu tuqimuhu kasartahu kon buñ buñ ne buñ dëgërantee bopp rek du baax kon jigéen comme suñu borom du ko bindee noon rek nañuy maslaha comme yonent bi salaay salaam wax di laabirante kon suñu borom mën a dogal ñu xam lu bare bari kon moo mbokk soxna yi loolu moo nekk li nga xam ne mooy wàccuwaayu jigéen ci lislaam la njëkk lislaam bi soo noon nañ torop waaye bi lislaam ñëwee joxaan ñu suñu liberté xama ñu ñooy kan joxaan ñu suñu responsabilité bu mat daal di farataale julli ci ñum comme ni nga ko farataalee góor ñi ndax suñu borom fu mu digalee góor a na jigen ndax jaamu yàlla góor jigen ci yam niki julli wor nat azaka aji màkka yooyu yep def lu bax yooyu yep ni ko suñu borom digalee góor non la ko digalee jigéen ndax jigen mom la suñu borom tara ba ne ko soo defee yi dem àjjana ta suñu borom waxul ko góor ndax alayhi wasallam mi wax nan إذا صلت المرأة خمسها وصام صهرها سهرها عز وجهها وأحسن فرجها فلتدخل fatadxul janna min ay abwaabin sha'at salaay salaam mi ngi naan jigéen su jullee julli juróomam weer weeru kooram topp ndigal boroom këram rafetal payam mooy mu bañ a njaalo dina dugg àjjana ci ni mu ko soobee te boo demee dañ koy laaj buntu yaa ngi noonu sa caabi yaay ngi noonu fa la neex rek dugg kon loolu suñu borom teral gu mu teral ak ak ni mu fonkee jigéen kon suñu borom ñun rek la ko defal kon nañu bàyyiwaat xel bu baax a baax te jigéen tamit xam ne suñu borom da ko teral naka noonu suñu borom non ndax tamit fonkaat borom kër yi baax na ki trop dinañ ci ñëw bu nekk tem ak tem ndax salaay salaam soxna Aysatu radiyallahu anha dafay wax naan yaa maxsara nisa in law taalam na bi xaqi azwaajikunna alayhim la jaalatil mara la jaalatil mara min kunna tamsaxu al ala xadamay zawjiha bi qaddin wajhiha soxna Aysa day wax naan yéen jigéen ñi bu ngeen xamoon ak seen aqi borom kër ni mu diisee ci yéen da ngeen jël seen seen seen seen seen di ko fompee seen ndëggu ya mooy seen tànk ya ngir àq boo xam ne ñun ameel nañ ko suñu borom kër yi waaye naka noonu lislaam ne defee àqi borom kër ci ci soxna noonu la defaatee àqi soxna ci borom kër kon nañu fonkaa suñu bopp bu baax a baax te xam ne jigéen moo nekk loo xam ne jigéen day defar société jigéen moom mooy ménagère bu borom kër yi xëyee ñun lañ fiy bàyyi ñoo yer njaboot gi ñun ñoo war a digal xale ñuy julli naka noonu wàllu col gi naka noonu wàllu jikko yi naka noonu société bi tamit suñu jublu woon ci mu baax te suñu borom ànd ci dina baax ndaxte jigéen nit mënta dem sans jigéen kon euh, dinañ ci dikkaat ci tomb par tomb melukaani jigéen ni lislaam fonke jigéen ak jigéen ni mu war a mel dina ci ñëwaat bu baax a baax ndax ku nekk sooy ñaan soxna su baax nga ñaan ndax kama xaala sallallahu alayhi wa sallam min xayri ma yactaqidul mara fi dunia kay kay yastaqima diinahu qalbun shakurun wa lisaanun zaakirun wa zawjatan saalihatan tu'iinuhu salaay salaam mi ne li ëpp ci góor mu koy ñaan ci nit gi mu koy ñaan mooy ci àddunaam ngir mu mën a dund dund gu sell ngir ngir diine mën a taxaw mooy xol boo xam day sant suñu borom fu mu toll ak làmmiñ boo xam ne day sikk mooy day tudd ci suñu borom fu mu toll ak soxna soo xam ne su sell la soo xam ne da koy dimbali comme salaxa seexul xadim ni mu ko waxee suñu wasila ci naan wa zawjatan saalihatan tu'iinu ala tuqaa wal birru yaa no ñaan suñu borom naan ko nu may soxna soo xam ne su dañuy su baax lay doon dañuy dim soxna soo xam ne su baax lay doon dañuy dimbalikoo dañuy dimbalikoo ci ragal yàlla ak topp ko yow aji dimbali waa koon bi kon ñoo xam ni soxna kon euh, lu baax la ci nit su soxna su baax ndax dañ daan sëriñ bu baax boo gisee soxna su baax mi ngi ca ginnaawam kon jigéen moom suñu borom digal na ko lépp waaye naka noonu noonu la war a sàmm wanteeg diineem ni mu war a sàmm wanteeg toppatoo borom këram naka noonu ni mu war a sàmm wanteeg ci jamono kon loolu lépp suñu borom digal la ko waaye naka noonu bu ñu suñu borom suturaalee jox ñu suñuy gën di jox ñu suñu responsabilité noonu la ñu teree yéen ñi ndax suñu borom day wax ci alxuraan naan waqarna fii buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jaahiliyatil uula wa aqimna salaata wa atina zakata wa atina allaha wa rasulahu innama yuridu llaha liyusba alaykum rijs ahlal bayt wa yurikum tathiira kon suñu boroom dafay wax ci alxuraan naan yéen yow Muhammad sa ñooñ wi muy jigéen ñi dama leen digal ñuy toog ci seen kër yi te bu ñuy génn di baraj baraje comme arabe yi njëkk yi dañ naan def nga xam dañ daan taxawaal dox boo xam ne amul laa faida fii amul benn njariñ kon suñu boroom daan na ko tere ñuy digal jigéen ñi julli ñuy toog seen kër duñ génn lu ci farata ta génn yi tamit dafa am ay termes yu ñu ko teg kon mu digal nim leen digalee leen ñuy tok ñu leen digalee leen ñuy taxawal julli comme goor ñu koy taxawal julli juroom ñu dul ni bu amé ngant rek dañu war julli naka non tamit joxe azaka nim mu goor julli ñu ñi lañu naka non top yalla ak yonenté bi ci ndigalem di top ndigalem bàyyi tere nim mu goor non noonu waree kon suñu borom mo ñu ko digal ñu tok suñu kër yi du jullee ko wor di nat azaka tay top suñu digal borom rawati na top suñu digal borom ak yonenté bi alayhi wasallam suñu borom li bëgg ci moy mooy ñawteef yépp dañ ci ñun ñu a bok ci ahlul bayt te suñu borom li mu bëgg ci ñun boobaa mooy ak sell kon liñ indi woon ci tam bi xam naa barewul muy muy loolu rek doon ci fàttali suñu mbokk soxna yi ñun jigéen yi suñu wàccuwaay ci lislaam kon ñun jigéen yàlla moo ko teral dafa war a xam mooy kan ndax bu ñu xoolee rek ci suñu wasila bi di waajuram di soxna jaara war nañu bàyyi xel lu bari ku mel ni soxna Anta Ndiaye ku mel ni soxna ma Jaxate waajuru Serigne Soxna ba ak Serigne Abdoulaye ku mel ni soxna Aminata Amar di way wayjuru sëriñ Abdou Xaadir mën nañu xool ci ñu bari bu boobaa rek dinañ mën a delloo suñu xel bu baax a baax soxna Moomina mu sëriñ bi soxna Musli soxna May ci liggéey bu ñu doon liggéeyal lislaam ak fonk ñu fonkoon seen borom kon war nañu xoolaat bu baax a baax góorgóorluwaat bu baax a baax ci wàllu diine ci sàkku xam-xam ndax comme sala sala ni waxee naan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslima waxaan naan utlubil ilmi walaw bi siin kon sàkku xam-xam moom war na góor war na jigéen ndax sàkku xam-xam dina la dimbali ci bari nga mën a xam yaay kan xam li suñu boroom araamal ci yow ak leen daganal ci yow xam tamit suñu boroom yan la diggal la tere ak xool jigéen la lay jomb loolu lépp baax na ci kon xam na ñuy joxe dig daje rek ba beneen yoon ki leen doon defal seen émission jotaayu soxna yi ci fii ci site c'est ibrafal.com di soxna Mame soto Touhfatou di wax wa axiru daawaana anil hamdulillahi rabbil alamin